الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي عليكم من كل قال سلام لما خلق إلهي تولد عليكم من كل قال سلام غريب الباء فأتلهر بغتة بتوابه عليك من كل قاب سلام لبطل إليه طول الليالي وتلها قوابل أم حسان ثم آسية أتى بذنابه

Allah بدار يسبب والمواسي بقول جل عليكم كل قائل لا فبلغت إلى الله متبرر سلام دلال مرضا بربي فيه كان مصطفى الخلق وهو قال من كالمتلبت بالكهذا بنايات ربنا المتحدث من كل قلب وهو مقتحس

ونصم وتولى في بذرة الكفر بعد الهلاك الجمال يسمى كل رجل هذا ملقاه يا له من كماله الأمان إبقى الخير نار بر على رأم بخماله وانقتال عيون كماله إن الأمان إلى خلقه وجبر على رأم في جمالك والجبال يا رب حائلا جبالك سلام لمخلوق مولد الهيرة خال به حجر المصطفى جسيم نواده بحقر مرضا كل مرض بالمقامة مرضا بالجبي ثقيل الذي تعالي أمر بن كل أمر بن محمد على من بجلدك بتعليم من كل حال إذا الأمور إلى خلق الله تعالى يا علي عن أبد كل واد عن جبل بالقطام صاب الغالي إذا الأمور في خلقك سبق في الفقر كل فكاته أنجب بالدر اليتيم من خاله وأبدهم الأليم

بركة النبي آخر لها فخلق من هذا بخلقه ربي بالمصطفى لبدالي عيشة أخبرا وتوفي أماني من كل قاتل سلام في مخلقي ربي بالمصطفى لتوفي جنة ما تعمل إذا لقتني ظلامك بمحرقه ساق جبريل صدره وبداه لبى ما هذا الجهاد إذا ظلامك سقه ثم سقه ثم لا بعد هاتين سقه بالتقال <laughs> سوق حلال لولكن مبهم بدلال واسعوا بما سعوا لما فاسعوا بنعمة وقلال صلى الله عليك وعلى عليك وسلام محمد الفاتن خلق القاتل الماء لنقل القرآن إلى صراطك المستقيم ولا بانجي تغيونتي على محمد صلى الله عليه وسلم عليه taggal yi nga xam ne boole na saa yi si yonent bi ak baatini yonent bi ak baatini baatini yonent bi loolu mooy lan nag fiñ dalee tey ñu dalee ci judub yonent bi dalee xoon nañ ko ci xam gu jëkk ga xam gu jëkk googu tuddee nañ ko sajratul yaqiin tuddee nañ ko duratul baydaa tuddee nañ ko malaakam kuroo biina tuddee nañ ko xaqlul awal bàyyi mu ne piri ma benn la mu ne maanaa yaa xuute waaye jubluwaay ba benn la kooku mooy yonent yàlla Muhammad yonentu boobu nag moom moom tànt bi tey te dégg naa ci baraam coow mu ne laaj na baay ne ko lan mooy gàmmo mu ne nga mu ne mooy ngay way yonent yàlla muhammad di ay waxta ay jikkoom ay jalooreem ñu nit way na yonent bi suñ kenn xam-xam danañ leen ko wax ci ni ko bàyyi rabbe ci laam yabi bàyyi mu ne jaa ahaa dikkal na ko talku madwa te wax wate moom fi daari aji nekk la mu ci kër ga fardandi aji wéet fa ataata dikkal ko alxóoru xóorul hay ni baxtatan ci mbetteel bi tawaalin ci toftaloo juddub yonentu baa ngoog nett nettalikat ci siire yi nag werante nañ ci fan la yonent bi juddoo ñu ne mu ngi juddoo kër ibnu yusufa ñu ne mu ngi juddoo ca duggoo ba mooy rak mu ba ñu ne mu ngi juddoo yi siibu abo taalib bàyyi mu ne li ëpp ci waxi góor ñi nag mooy siibu abo taalib te damay wax ne waxtu wu ci ngay weerante demal ci bàyyi rek dal de dajeeg sawaab bàyyi moom waxam weerante amu ca moo tax lu la jaaxal ci téere yi demal ci bàyyi rek ndax moom rek moo ñu fi wax ne képp ku ma indil hadis mu wér mbaa mu doxadi ne yonent bi def daan julli da yor loxoom mu ne su boobaa indil ma ko rek ma jël li ma am ci téere yépp jox la ko te man suma xam-xam mooy téere te bam ko waxee ba léegi kenn indil la gud ko ko kon lépp lépp bépp téere yoo xam ne werante nañ nañ dellu ci baay rek baay mooy tëralukaay bu mag ba léegi nag yonent yàlla Muhammad aminatu xam ba na ko juróom-ñeenti weer gaa ñaa ngi koy ndokkeel aminatu mu ne ci weeru wu jëkk aji ñëw ñëw na bégal ma mi ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa xam ba seydil mursalin sangam ñu yónni ñi ma ne ko yaay kan nag mu ne man maay baayam aadama ci weeru ñaareel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa xam ba siidil awalina wal sa nga woy jëkka woy mujj ma ne ko yaay kan nag mu ne man maay siisa ci weeru ñetteel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa xam ba nabiil karim ma ne ko yaay kan nag mu ne man maay idris ci weeru ñeenteel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa xambu seedi seri wa nabiyul xafis yonent bu fegu bi te yonent bu laab bi ma ne ko yaay kan mu ne man maa yonti yàlla noohin ci weeri joomeel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow mi nga xam ne yaa xambu seydil basar sangi mbi néefi ma ne ko yaay kan mu ne man maa yonti yàlla hóot ci weeri joomeel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa bu nabiil haasimi yonentam haasimi bi ma ne ko yaay kan nag mu ne na bégal ma ni ma yow aminatu yow mi nga xam ne yaa bu habibi rabbil alamin soppe bi ndee fi ma ne ko yaay kan nag mu ne ma man maay ismaila maamam ci weeru juróom-ñetteel a ci ñëw na bégal ma li ma bégal yow aminatu yow mi nga xam na yaa xam ba xaatimi nabiin wa imaamil mursalin aji mottali gi yonent yi te seen i limaam mu ne ko yaay kan nag mu ne man may kalim ci weeru juróom-ñeenteel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa xam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yaa de kan nag mu ne man naa yonti yàlla xeesaarohu laahi moo tax alquran nañu wa mubasiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad xam nañ ko juróom-ñeenti weer nag ba muy bugg a juddu nag nañ ko doon ndokkeelee ca weer ya noonu lañ koy ndokkeelee ca bés ya su ko defee nag ba aminatu xam be yonent Abdoulaye baayam dal di dem ci baayam Abdul Muttalib ne ko baay suma soxna si wan na lor man nag tukki betteeku ma ne maa ngi bëgg a tukki jaam xam na demam waaye xamul dellu seen fu mu doon dem saam waaye mu jaal Yasriba mooy Medina tey saam googu nag ku ko tudd boo demee ci téere bu ñuy wax muhammadu rasulullahi moo ko def ndax Fodé moo gën a bëgg a wax loo wax mu ne fu mu ko jëlee ba ko defee nag fekk booba yonente nga am ci biiram yaayam ñaari weer mu dal di dem ci tukki ma feebar jot ko fa mu dal di des ca feebar ba waaye fekk battale woon na nag ne su ma soxna si suba ne lor na nga dem ca Kaaba ga nga ñaanal ko yàlla ndaxte de yàlla may ko mbalu sedd ba juróom-ñeenti weer ya matee nag mu dal di dikk nag ci Abdul Mutalib mañ ko bàttale woon ne ko bàyyi lala suma borom kër ga bàttale woon jot na fakk naa suma bopp Abdul Mutalib dal di dem ca Kaaba ga téye ca jaaru Kaaba ga mu nga naan yaa xayu yaa xayoomu bi rahmatika astaqis ay xayu ay xayoomu xettilil aminatu yan na nga may ma sedd mu ne lu ma xamal ne yoon ci yàlla Muhammad juddu na suma gannaaw nag kaaba gi tabax gu wow koŋ fecce ndeejoo fecce càmmooy palpali ni wali del Mustafa wa rabbul kaabati alaana taarani ilaahu min anjaasil musrikin mu ne ma dégg benn baat bu wax ca kaaba ne wali del Mustafa al muxtaar allasi taaliku bi yadihi al kufaar mu dal de daw ñëw daje daje dal di dajeeg abolaab ne ko dégal yow Abdul Mutalib Aminatu am na doom ju góor mu kontaan lool waaye nag gaa ñi abolaab ni dégle woon ci judub yonantu boobu bàyyi nee nañu xal tene ji jot dañ ko génnee safara xooye falal ko mbugal waaw loo xam ci waajoo xam ne nag nekkut julit bëgg na ci judub yoon ci yàlla muhammad rek ñu ne ko xayafalal mbugal loo xam ci waajoo xam ne gëm na alquran mu ngi koy jàng mu ngi koy jàngale tantal yonent bi tant bu hem nii dajale julit ñi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan jox leen ñu sedd ñu naan ñuy tagg yonent yàlla muhammad muy génnee xalalam da joxe bi ay bëtam da génnee rongoñ lu ngeen xam ci waajooju xaymam kenn mënu ko xam abdul mutalib nak dal da dem nak bam deme nak yakanti pour bëgg gis sët bi day abdurahman ibnu xoof ne ko bul ñëw de ñun doomi aadama yi sax jotaguñ ci mom malaaka yi ñokoy rewli mu dal de tok begaa ñi sotal ci mom ne ko pare na ñëwal mu dal de ñëw nak fekk yoon ci yàlla muhammad juddu nak indale leer doomu aadama yi ku moom booy juddu deret ngay indaale dañ lay sanga nga door a mën a ànd ak nit ñalet loolu nag ki ma jàngal te bàyyi jàngal ko te mooy Cheikh Omar Fati Diallo radiyallahu anhu wax na ñu ne doomu aadama su nekkee ci biiram ndeyam dafay foog ne foofa rek a xam lu koy xamal ne feneen am na fu dul fii mu nekk nag mooy lekk yi ndeyam de lekk ak naan yi ndeyam de naan mu di ko fekk ci koll ba mu xam ne yii dey feneen laay bàyyeekoo fudul fii muy kumpa nag fi ko yëf bàyyeekoo mu jiital boppam nag dëkkun kuni dëkkun kuni dëkkun kuni ba bañ koy wane yoon wa yonente nag moom xam na ndakaaru xam na ndar xam na jolof xam na saalum ba jiitalante wut ci boppam xam ngeen nu mu ay tànkam la jiital xar ju mbaxam yaayam jaar ci fàll sàll wet gën a xam ngeen ne ku dul yonent boo ko cippeelu sa biiram day rek sa yaay dina dee waaye yonent rek la yàlla teralee mu mel ni ku tëdd ci sablal dem neex la rek nga ne cëpp mu dal di cippeelu dal di teen kaw bàyyi mu ne teen kaw googu lum lay wan mooy ku fasawa kowe ñu koy ngay xol bët moo tax mu dal di teen kaw xemut ci teen kaw ga mu dal di rot ne allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran وسبحان الله بكرة واصلا لا إله إلا الله إني رسول الله اللهم رفيق لا لا ولا لا tudd nañ jaamu jëf nañ jaamu su ko defee nag mu dal di juddu nag teen kaw googu bus yi ñu koy wayal mu ne raafe ana rasul wa fi sale karaf ila kulli sodadin ima sallallahu alayhi wa sallam ba ko defee nag mu dal di juddu nag si jóot na dal di tàllal nag loxo ba banque ñeenti baaroom ñépp tàllal benn baaroom bi ngir de wane yàlla kenn la loolu la doon wone moo tax ndeysaan abbas mos na ko koo laaj ni ko yow dey Muhammad jaaxal nga ñu ñun de gis nañ ba nga juddoo de liir ngay joxañ weer yi sa baaroom bii loolu lu ko waraloon mu ne ko weer yi mooma doon waxtaanal ne ma ey Muhammad bul jooy yaa tax ñu bind ma yaa tax ñu bind jant bi yaa tax lépp lu yàlla bind mu bind ko sa benn toqal rongoñ rek bu mu ci kaw suuf de mu ne ko looloo taxoon ma doon joxañ weer yi مملا باينا ثم ناقا والبدر ثم تدلى انجو موسور للمنير كمير صلى الله عليه وسلم بام كو ديفه ناك مو دال دي جودو ناك اندا لير لير غو خامني ليرال نا تنكو لير غو خامني ليرال نا قفو لير غو خامني ليرال نا غوبو لير غو خامني ليرال نا غالاندو xaatif yaa ngay bégle ci moom xaatif ya ca penkoy ngay bégal ya ca xarfu bégleen Muhammad juduna xaatif ya ca ndey joora ngay bégal ya ca càmmoy bégleen Muhammad juduna su ko defee niir ya dal da koy ko ca kaw loxob aminatu bi dal mu dal di jooy ne wallaa yéen waa Màkka yéen a sàggan walla juraloo naa leen doom joo xam su ngeen sàgganu teel ba yóbbu ko yaaram yi danañ leen topp lakkakat bu leen topp dana leen fay galak waaye ndikete sàggan ngeen dañ yóbbu ko bàyyi na yóbbu huñ ko dañuy barkeloo ci moom rek sàkku barke yaa gën a fi mu ne sin rek ma dégg ku ne toppoo bihil jinaanu wal janaan toppoo bihil bihaaru wal biraar toppoo bihil masaariqal ardi wa maqaaribaha wër leen nag moom géej gi ndax bu xetam lap war leen nag moom asamaaw ndax mu nangoo taw war leen nag moom suuf ndax mu nangoo saxal gàncax war leen aljanna ndax mu tee ñeexal way dëkkeem mu ne suñ tuute rek ma dégg ku ne baxin baxin xabila muhammad dunya kulluhu est-ce que est-ce que muhammad ngam na àddina lépp mu ne suñ tuute rek ma dégg ferfer yi njanaaw ya naaw nañ ba tolloog suma mbagg ma fopp seen mbagg ya moom la bàyyi xalifa magi bàyyi naan xafaqaadu tuyooru fiha hu fiha min kalaamin lam laaki kaana nida sallallahu alayhi wa sallam mu ni sim tuute rek ma dégg ko ne ahtahu xalqa adama wa maarifata siisa wa qullata ibrahim wa sajjahata nuuhin wa hubba daniyaal wa siddata muusa wa قلة إبراهيم ولسان إسماعيل وسدة موسى ووقار إلياس وبسرى يعقوب وصبر أيوب وتاهة يونس وفصاحة صالح وحكمة لوط وصوت داود وملك سليمان وحسمة يعيا وسود حيسى أخمي في أخلاقي نبيين وحجي فورا mune ma deg ko ne jox len ko bindab adama bopam jaa ndax xam ngeen bindab adama bopam min la nam hadam delu la miimam ñaareel ba moy bit ba tanke yak loxo ya moy del ga motax tax mu jow ju dem safara muk su ko nan ne bugal def ko soppi golo mbam mbaam tugal waaye jëmm ji nga xamne amna lu lu mala wax mom ken du ken dugal safara su ko nak mu ne jox leen ko xam yàlla ak siisa xam yàllaa ngoog jox ko njàmbaar ak nooyin leen ko bëgg yàlla ak daniyal jox leen ko xarit ak ibrahim jox leen ko lamiñ ab ismaila te moo de arab jox ko dëhër ak muusa ko itam wegug ilias jox ko it mbégam yàqooba ma bañ ko sànnee mbubam yusufa ma jox leen ko muñ ak ayo baga jox leen ko itam fasax ak saaliw jox leen ko xam-xam buy jëriñi lóot jox leen ko neex baat ak daawuda ga jox leen ko nguur ak suleymaana ga jox leen ko mucc ak yaxyaa ga jox leen ko diblu habina heesa ga jox leen ko mboolem jikko koy yonent yi moo leen gën ndax ñoom ñëpp dafa amee seen jikko yi moom kenn te ñi ci des ñëpp ku ne sa jikko yi bopp nga ame mu ngi mel ni baay baay ba mu nekk moom kenn fardul jaame wala yëf yëpp moo ko téye woon ci loxoom tey nag dañoo seddoo yëf yi am na ñu jël neex baat gi am na ñu jël njàmbaar gi am na ñu jël taar bi am na ñu jël dara ci xam bi am na ñu jël itam tabe ga waaye boole yëpp ci benn loxo bàyyi ko defoon moom. نون لا يونت بي ميلون صلى الله عليه وسلم تي دما لين واخني باي دون نغي دون لا يونت بي دون نك حقيقي لا دون نكو سي جيمم جا دون نكو سي ميلون وا دون نكو سي خام خام با دون نكو سي جيكو يو فات جا بام كو دفي كون يونت الله محمد مولين گن مولين گن لوتخ القران مو ويرال گن دي te yëpp yàlla joxor na leen saalalu na leen yaa noohu jàng ngeen ko moos yaa ibrahim arid an jàng ngeen ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan jàng ngeen ko yaa saalihu xat kunta fiina marjaan jàng ngeen ko yaa xesam nu mariama a anta qulta linnaasi jàng ngeen ko ndax yaa muhammad jàng ngeen ko déedéet xam ngeen luñ koy waxam yaa ayyuha rasulu balex yaa ayyuha rasulullahi sinka yaa ayyuha nabi jahidil kufa yaa ayyuha nabi isa talaktum yaa ayyuha nabi lima tuharim yaa ayyuha nabi itaqila yaa ayyuha nabi hasbukallah yaa ayyuha musammilu qum ilayla yaa ayyuha mudasir qum loolu la ñuy wax waa ji waa yaa muhammad doo ko jàng mukk looloo tax bàyyi xool ko ba mu yàgg mu ne ko inna qad nahlan biya e faqasalan biya inna qad nahlan biya e faqasalan biya inna qad nahlan biya faqasalan biya koy ci ya ya ayyuha rasul ya ayyuha nabi ya ayyuha muslimu ya ayyuha mudassir lool nga mane gaay loolu mooy juddu yoon ci Yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam boobu nag ويكالي yi way nañ ko bu suñu ne laylatul mawlidi la si kaana وتوالت مسل الهواتف عن قد ولد المصطفى قلنا وتدعى إيوان كسا ولولا آية من كما تدعى البناء وقد كل بيت نار وفيه كربة من قمودها wa balaa sallallahu alayhi wa sallam maam Maodo ne ko ca nuuniya wa mawliduhu bihi salafun wa xayran wa mawliduhu bihi salafun wa xayran wa mawliduhu bihi salafun wa xayran fa bihi taasiimi in jaa'u si jooni ala sururin mulukilaha jubulan wa nagi mulko iso naxsil mayne maam borom Tuubaa ne يكو جسم نور العسين قد يرى به قصور قيسرى من كان به أم القرى مكة خير الأرم باي قريبا نكو أنت للكون باجة وبهاء وتجالت بنورك سلماء تابا شوليجي لب نيبجي دج دبجي نكو نور زمزم تبسقل إن زمزم المسلسة سلام دلالالي واجانوك ba mu ko defee bi ko gaañi waye way yooyu judub yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam yii xew na ci am na benn waay bu ñuy wax Abdoulaye ibnu Nawfil ibnu Abdoulaye ibnu Jaxsin ibnu Nawfil dafa samp xere mam daanu mu sampaat mu daanu ba muy ñetti yoon mu gëdd xërëm ba ni ko loolu yow lu tax suñ la sampee nga daanu rek suñ la sampee nga daanu mu ne nopp lu leen sa nga way jëkka wooy mu jigane na àddina demee na mbooleem nguur yi amul benn buur buy fanaan ci lalte ñëpp ci suuf lañuy ñuy fanaan loolu xew na ci juddu ba xew na ci juddu bi yonent tubaabu sallallahu alayhi wa sallam mu bisaan gént ak gént ay fas yaaram yoo xam ak mi cëmb ba ca dex ak dig la taga ñu tasaaroo ca rewee lool jaaxal ko lool mu ne man day damaa génti gént goo xam ne damaa bëgg ko ma ko firil te duma la wax ne nangam laa génte yow yaa koy xam yaa koy xam ci sa xam-xam rek ñu ne loolu day sa tiiw ca saam rek moo ko man mu hebal jarbaatam bu ñuy wax Abdul Masi jox ko gëleem ne ko demal nga laajal ma suma gént gii waaye bu ko wax dara de déglu ko rek mu ñëw nuyoo fayut ko mu sadd ko ay way asama am yasmoo kisriful yaman am xada fi fada bi saawul hinan dafa taxam sa ngan yeman di da ngay nelaw mu ni xifeet xol koog ba tam yu xonqaya ne ko abdul masih dikal nga sedes nañ ci yeen kenn fukki tóor ak ñent yeeru son ci tabax ba way bo de nga nak nga ne ko nak pour mu ñew te nettali loolu nak gaña kontan danañ jeex legi fukki yeb ci jamono yoon ci ala muhammad lañ de ñent yi ci des nak ñoom ci jamono saaba yi ki ci mujj jamono yes la jur da jamono Omar ibnul Xattaab loolu xew na ci juddu bi jëkk juddu bi ci Yàlla Muhammad jinne yi daan dañ daan tegale de sàcc ak dégg jinne daf daan sëgg moromam jinni tege ci kawam ba jinni jëy mujj sës ci asamaaw ju jëkk ñuy jéglu ñuy déglu car-cari xalimba xudratu yàlla ga suñ ca déggee génn dëgg yokk ca juróom-ñeenti nar booba ak buxaaba niir waxoon na kere ba yoon ci yàlla Muhammad ju doo sallallahu alayhi wa sallam ñi fàq bi di jum nag da leen moom la ñu baanaan rajama jam na ruj ni biddiw ya de way jam samma foofale ku la rëji min seytaani si njam haala malqaahu fa geegam yaala ho hemal min kamalin cingmat keraɓe yon calo mouhamad jido la safara wa fay gamaj handak fallugoy kamba ñag baringmatama bo hayrata sawu ñiis lali nguuri faris yaddammo seen xërëm ya jettu mokk mu mel ni laaj bàyyi nag ne ko waaw loolu yépp lu ko waral bàyyi ne mawlidun ab juddu la xayara boobu gëlëm loo na alxaqoola xel bii ci juddu boobu li xaasal ak fondement li xaasal ak set li Moustapha ñeel yeneen te bi na waari kay aji bari ji may kooku mooy yoon ci Muhammad bàyyi ngi daw xaat la Busiri waxoon ci am siya bane wa badat fii la daa ihi mujji saatun mu ne kuy yónnee guddoo xam mujji saat li xaasal lay xam bàyyi ne bu say riyu day mën naa ko may mu gën maa dégg arab waaye mayu ma ko mukk mu gën maa xam yonent yàlla muhammad wax na dëgg ba mu ko defee nag bàyyi ne maa ngi tatagal maa ngi ndokkeel niir bu rafet wa maa ngi tatagal maa ngi ndokkeel aji taba ja nga xam ne joxe xaakoon la mu ne waa ñaan dana ma ndokkeel ay ati li bintin ñeexal doomi jigéen li waa jële ko banu haab an jur na mu bil xataami ci sanga ba saa fi sulaari ka aji sell ji xel mu ne sabaqat jiitu na fil faqaari ci puukale kulla sa kulla fataatin sépp ndaw si jigéen an jabat jur na mu bili duril yatiimi ci warusu duriwu wéen wa alqaali ka aji seer mu ngi la indil nag bés penci bàyyi mu ne jigéen ñi dañ doon puukarante ku jur wali yu ne jur naa wali yu ku jur kaang ne jur naa kaang ku jur foode ne jur naa foode ku jur ab yonent bi ne jur naa ab yonent bañ waxee ba pare aminatu ne yéen ñëpp wàcc leen gàngu naay gi ma xéeg ñoom ñëpp ñu dal de wàcc aminatu dal di xéeg gàngu naay gi ne yéen ñëpp noppi leen maa jur sa nga way jëkka way mu jële dal de jël puukare ma bàyyi mu ne yonente ku gaawoon màggal la nag gaaw na màgg li nit daan màgg ci weer ci bés la ko daan màgg li nit daan màgg ci bés ci waxtu la ko daan màgg li nit daan màgg ci waxtu ci minute la ko daan màgg bàyyi mu ne ñaari weer muy raam ñetti weer muy yàngaa juróomi weer muy cokor juróom ñaari weer muy waaxu juróom ñeenti weer mu gën a dégg arab te gën ko fasaada ñëpp fukki weer muy sànni fett foo xam ne waxambaane wu ñaar fukk ak juróom mënu ko faa sànni ngir dooleem ju rëy gannaaw bu mu juddoo nag ci xat ma yonent bi juddoo nag jigéen ju xam doom rek góor lay doon bi atam Muhammad ya lañ ko tuddee woon jigéeni taayif ya nag dal de dem ca xàll ba ñu ne dañ doon waxtaan foofa la ne xaati fu rabbaani fekk hatif nak bàyyi nañu moy lo xamne da ngay ne dangay dégg baat ba te tey gis jëm ji xamna lol téléphone yi ñoko hutu wa téléphone yi gaa bari nañ man-man day liggéey lo xamne ki ngay téléphoné da ngay dangay ak mom da ko xol su ko defé nak fofu lañ doon waxtane nak fofu la leen hatif ba fekk ne ay yéen jigen ñi le walaay doom juddu na ca màkka ku ko nàmpal da nga am texeeg àddina ak texeeg alaaxira jigéen ñépp buura ndoor am nañ lañ war nag aminatu saadiya moom it buur waaye xamul lu moy wajanu mbaam wu yéex te gaañ a war waayu gaaw lañ am départ nañ nag gaañi jiitu nañ ko màkka waaye ñoom it buñ loo laaj doom ñu jox leen ñu gaaral leen yonent bi ñu ne ko waaye kooku de moom ku ko ku ko nàmpal da nga xam pay waaye doo xam buuñaa ndax bam amee ñaari weer ci diiram deyam la baayam dee nga ne kooku de ku ko nàmpal da nga xam pay doo xam buuñaa te ñun buuñaa lañ bëgg kenn nanguuta nàmpal yonent bi ñu ba ñu bàyyi ko fi xalimatu yi ñaar rek de benn ñaar bi agsi kër gum nuyoo ne man doom du ma doom ju ma nàmpal laa bëgg xam ngeen luñ ko cay tegalam ni nga woñ soo ak ni nga bare sagar xanaa koo nàmpal doomam mu dee kenn nangu ko jox doom ya muy hut nag ba yàgg mu dox doxam ñaxtu li ndakaaru def ne est-ce man xànd ak aw nit ngeen di hut ña nga xàndatoon ñëpp xam lu ñuy hut yow ma xàndoon nag ñoom xamoo dara am koo xam ne ne yaramam daw na ci wax ji mu ne ko wax nga dëgg de waaye kër gale de doom doomang fa nañ dem ma won la ko waaye aha doom juñ belli la de mu ne may dañ maa belli nañ ma won rek mu ànd moom ñu dal di dikk kër aminatu nuyoo aminatu fay leen mu ne ko kii ma xandat de doom jum nampal la bëgg aminatu ne ko doomang fi de waaye juñ belli la mu ne may de dañ maa belli ñaar ñuñ belli nag suñ àndee yàlla ma na xëyénal seen bit moo tax ñi tiim taabal ji bokk ak man melo ma ànd ak ñoom xar ca xar ya béy ca béy ya nag ca nag ya ba ko defee nag moo tax Baay Amadou tiijaan bi tey waxoon na ma ca tey ba mbikkeen ne ma dangay laxas dem jàngi ki ma lay booleel nag mooy Omar Fati Diallo Niass suma doomi nijaay la aman ah, mati ñes moo ko jur man maram njome moo ma jur te nit ku nekk kam bokkat melo moo ko dàqa jàngal laxasal ko dégg ndigal góogu ndax moom ma tarbiya dégg ndigal googu ak laxasal waa jooju mu dema teralal darsu yi su ma teralee darsu génnee hadis boo xam ne hadis bu tumaranke la ñu de ko ko tuddal moom dafa amoon ay tuddukat fu ma nekk fu ma mën a nekk ci ñeseen nag daañ ma jëli su ma ñëwee mu ne ma Babacar toogal bàyyi def maa waxoon ne jàng dégg rek kala del jëkk ci jàngu bi dafi mujj yow it gannaaw lii la tax a jóg toogal may tudd hadis yi ngay dégg lu la ci jaaxal ma firil la ko su boobaa da dem ba mën a waxtaan ak fóode yi noonu laa def mu dama tuddal dama tuddal dama tuddal ba mu jëg dundam gàmmo goo xam ne génne na hadis bu tumaranke ca gàmmo ga rek la may waxee ne Babacar Thiam takkal su ma ne takkal rek ma takk mokkal kooku mooy Cheikh Omar Fati Diallo mooy hujjatul haarifiin mooy ki nga xam ne bàyyi waxoon na ko del jëkk ci jàngu bi dafa mujj muy mujj de gàgganti fóode yi ku yàq masque sax mu ne la sa masque gi yàqu na te buñ ko seetee muy dëgg kooku noonu moom li mu war a doon du ma leen ko wax ndax moo daan toog fii de wax ak yéen ci alquran de wax ak yéen ci hadis te du ca juum kooku mooy ki nga xam ne moo ma jàngal bàyyi ko jàngal mu jàngal ma te loolu kat beneen ma xamala su ma digganteeg bàyyi xomar rek a fi dox ba mu ko defee nag ah ali alimatu nag yé Aminatu dal di yëkkati doom ji liir bi jox ko. te jàqoon na foogoon na ne du xam doom mu jël liir bi kontaan lool dal de koy jël nag war waral ko ci mbaam mi ndikete oh, ci gannaaw ak mbaam ma la ko waral dóor dóor mbaam mi mbaam mi bañ mu dóor dóor mbaam mi mbaam mi bañ mu gëdd mbaam mi ne ko loog yow bi ñuy bàyyi ko taayif yaa gën a yéex suma bokk yi raw ma te ñuy bugg a nga bugg a yéexaat ba suma ma mbaam mi ne ko déedéet du yow de du déedéet du man de yowa ah. mbaam mi laa wax de mbaam mi ngeen xam muy ŋaa moo ko wax ne ko du man yawa du man yawa yow yaa jël xilimaane mul ko malakoot féetale ko gannaaw xilimaan nag su feetee gannaaw julli ga dafay jangar soo buggee ma dem suma yoon jëlal xilimaan ji nga féetale ko kanam mu dal de jël Moustapha sallallahu alayhi dañ la koy teg ci kanamam mbaam ma mbaam maa ngay cal mbaam maa ngay cal mbaam maa ngay cal ba romb fu den nga buntu kër ga fu den nga ne mu xeet ak i bànqaasam reenam de bëf bëfi ba ci kanam yonent bi mu ne cëpp ci kanamam ne ko labbayka sayyituka anna rasulallahi sallallahu wa sallam mbaam mooma nag gaa ña xëyoon nañ asbahat saa'uhaa jiyaan sunaahan sumarahat bi aksi saa kal haali أصبح سولا هجاب وأنت ما بها سائل ولا الأكفاء يمن يلا فعل بينس موجلكم من من فرمكو بمن واحد جمانو تكودون موم نعمل من تفلين ينغي لنغي تيوتو يدي ود باس كو پاري پاري نك pour nga pour nga jox ma dépasse pour ma langal la ci osta auto dencal dépasse bay dox na di bandi gentek lola moo tax ci caaxo caw yoor dama ànd ak Serigne Ousmane Faty Niass mu ñëwal si tool bi fekkoon ma uti asaka ca caaxo may si kar nag te moom xomar doomam wax na ko léegi du tànqam lu si kar du tànqam lu tegu yonent bi kuy laaj asaka kay su fekkoon ne keneen nga woon da ngay yónnee saax rek yónnee ko ko waaye mu dal de nag laaj bang ñu jox ko mu toog mu dema déglu dama déglu dama déglu ba yàgg mu ne ma Babacar Thiam maa ngi lay ñaanal yàlla bul taxawalati ci buntu bul taxawalati bul taxawalati sa soxla si kenn lépp loo bëgg rek lépp loo bëgg rek yàlla bàyyi yan na baay dox sa digganteeg loola fajal la ko ñaan googu nangu na de mu ne ma nag dama bëgg nga jàngal ma lam ya ci buntu mu mujj bi mu jàngal ko laam ya mu jël jàllaabe solal ma dana yëkkati xaalis bu bëri jox ma ne waa caaxoo gis ngeen nit ku nekk dikk na fi laaj asaka waaye kii ni muy laaj asaka du ñëpp ko koy laajee waxtu muy laaj asaka ku mënoon a joxe benn jox joxel ñaar ku mënoon a joxe ñaari jox joxel ñeent laajam asaka kat gis nañ ko ci waxtu wu nekk waaye kii nag moom laajam asaka ma leneen la kooku mooy bàyyi gaa ñi fi toog su ko defee nag Halimatu Saadiya gaa ña xeyoon nañ mbaam maa ngay cal mbaam maa ngay cal mbaam maa ngay cal ba gaa ña xeyoon mu duble leen gaa ñi ne est ñun démbu démbu yaa gënoon a yéex bañ gën yaa gaaw tey tey nga gën ñoo gaaw lu xew mbaa mi ne leen du ma mën a xam ak man maa xenu sanga way jëkka way mujj ku xenu sanga way jëkka way mujj nag war laa niroog ña ko xenuwul moo tax ma gën leen a gaaw mu dal di taayif nag bekkoor a fa nekkoon ba yonte mo ba alimatu saadiye du géeg yonente bi rek naa tax nga dal de remplacé gàtt boo laal gannaaw am na xenaat rek boo rattee meen mbann moo hubbi mu gën a neex ndoxam kaafoor gën a sedd galaas xiwal gu réy woowu nag ci la yonent màgg gaa ñi boole kook sàmmi alimatu saadiya yi bu ñuy sàmmi seeni gàtt ñu boole ca yonent bi waaye xoolal kiimtaan li yàlla jëkk a def mooy fu mu jublu ñax ma dal di ni tax fu mu woon gannaaw ñax ma wow buñ ñibbisee ñiy sàmmalu nag ne ah ñun dey gis nañ kimtaan sàmmi alimatu saadiya yi dey xanaa fi leen de sàmmale bokkut ak ñuy sàmmale ndax ñoom alimatu saadiya gàttam yaa nga lëy ñu ngi rafet ñun suñ gàtt yaa ngi songoon ñu ngi làpp mu ne ah xaw ma ñoo bokk fu leen de sàmmale waaye xam naa ne bokkuñ ku leen de sàmmal ndax ku yonent Yàlla Muhammad de sàmmal fekk caaw dafay rafet ndeysaan nag ca caawa googu nàndal jot na nag ñu dal jël seeni baat da ko yaam ci seeni goj wala boog ñu jël seeni goj da ko yaam ci seeni baat yonente waaw lu ngeen jublu ci lii ñu ne dañoo bëgg a nandal seen gàtt yi yonente ne leen nandal gàtt jarut ut buum deraw ci dara topp leen ma rek ñu topp ko rek mu dal da leen làqoo aw doj rek kat daa tànk ba ndox mi jàll mu ne ñëw leen nandal gaañe nandal seen i gàtt xew na ca nampal ga xew na ca nampal ak yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam xawaas yi ne amoon nañ xur woo xam ne gaynde gu dangang moo ca nekk ku say gàtt woo ñëbe dugg ca xur rek gaynde ga yéy la gàtti xalimatu saadi yéye woñu nag am ci woon ñu dugg ca xur wa yonent yàlla Muhammad jóg ak taaram bu rëy ba nag mu ngay daagu ndagaayam lu jekkala jëm ca gaynde ga gaañe yi waxoo yaa Muhammad yaa Muhammad foofu gaynde gu danga nga fi nekk mu ne leen yalla wala rante naag borom sell yi ne bu leen laal suma waa ji yàlla wala borom dangar yi ne bu leen laal suma waa ji yàlla wala rante naag borom ñaw bu leen laal moom la Busiri naan hamma qawmun bi qallihi fa aba sayfun wa faan wa faati safwa sallallahu alayhi wa sallam mu dal di xàgg ci gaynde ga nag xettal ko loo xam ne kenn déggul ko xanaa ñu gis gaynde gay ngawul da ba kenn gisatu ko loolu xewoon na ci nàmpal ak yonent bi xewoon na itam yonent bi bañ ba ko alimatu nàmpale eh, bem am ñaari at booba lañ ko feral bañ ca tegee juróom benn weer mu xànd ak foofa foofa mu xànde yow nag gone ya nag jibril ak mikaayil ñëw ngir na a xotti si dënn ba jibril moom la yàlla yónni ci yónnante yi waaye mikaayil nag mu amee wërsëgi doomu aadama yi jibril ak mikaayil ñëw nag fee ñoo xale yo nelaw till xale yaa daw ñu fee ñëw yonti yàlla muhammad meloo waxambaane jibril nag mikaayil am koy laaj mikaayil ne ko aw huwa mu ne ko huwa huwa ndax mooma mu ne ko waaw moom la ñu ne da koy daane xotti dënn ba jibril moo xoll xotti ci wàllu ndejoor bi mikaayil moo xotti ci wàllu càmmooy bi ñu dindi lumbu wu ñuul yi nga xam ne ku mer moo la merloo ñu dindi ko sànni ko suñ ko def suñ ko ci defu toon mu manqué ak doomu aadama te yonente bëgguñ dara lu manqué ci moom waaye ki ko ci def nag mën na koo dindi ci gannaaw bu ko ci defee su ko defee nag yonente yi nettali yonente mu ne ma dégg ko ne peese leen ko fukk ci xeetam ñu peese ma ak fukk ma lënga leen ñu ne peese leen ko téeméer ci xeetam ñu peese ma ak téeméer ma lënga leen ñu ne peese leen ko junni ci xeetam ñu ne waaye bàyyi leen xale bi waaye su ngeen ko peese woon nag ñañ kaw ak ñañ suuf it mu lënga leen ndax mooy basasul ak waali mooy xam ak bindee fii nag leer na ñi xam yàlla waaye ñi ko xamul nag maa ngi leen di jox misaal mu ngi mel ni ñaari junni yi nga xam ne moom la ma bàyyi jox léegi junni baa ngi ca biir ju ñeenti téeméer yaa ngi ca biir ñaari téeméer yaa ngi ca biir téeméer baa ngi juróom fukk baa ngi ca biir ñeent fukk baa ngi ñaar fukk baa ngi fukk baa ngi ca biir biir ñaar juróom yaa ca biir waaye soo xottee kayit gi nag xotti xaale nga xanjar waaye kayit ngay xotti ku bugg nag fu xanjar nekk ci biir kayit be boo xottee kayit xotti xaale nga xanjar demal ci bàyyi abi ñas kooku moo koy xam le sallallahu alayhi wa moo tax mu ne foofa moom yonentu boobu baarul xerfaani mooy géej ya xam yàlla su ko doog ko tef na ko xalal ardi ci kaw suuf waaye walakin li fi nekk xam nga sel ma xamañ foofu ñoom xeefari makka fi dalaalin way nekk lañ ci réer bu siiw nag ne lañ def ci dënab yonent bi day way siiwal yi siiwaluñ ko bàyyi ne ah naam siiwal nañ ko soo bëggee xam lañ ca def nag jàngal suma lam ya bi ñu ne ko bàyyi aadi loo wax mu ne waa saa feesal nañ ko bi ma saa ca lañ feesale ko loo feesal nañ ko bi hikmatin ca xam-xam buy jëriñ waqi saali nag ji koy rafet loolu lañ def ci dënab yéen ci yàlla Muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam boobu nag ba mu amee juróom benni at te mooy xaama sittin min umrihi ma tatilu mufaridan baadin bi xayri nisaal booba la ko yaayam yóbbu Yasriba nag ci ay nijaayam walla doomi nijaayam bam demee Aminatu dal de jot ci feebar ba feebaram ba sa fa nekkoon Aminatu jot ca feebar ba bam ca jotee loolu mooy sabab ak génn ak àddinaam nag ci feebar boobu ci la des waaye ba muy génnat àddina nag mu ngay dénkaane mu nga naan wa kullu kasirin yaf naa lu bari dina jeex ba mel ni mosta am wa kullu jadidin baalin lu xees dina ràpp dañ sànne ko ca sën ba wa kullu hayin mayitin kuy dund da nga dee man aminatu danaa dee waaye su ma tage dana fi des wax na dëgg de ndax fii ci gannaaw raay doomam ji lañ fi tàntal te xam ngeen ne ku tagg doom da nga tagaale yaayam saka yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi de déngoo jooy dem fa yàlla ni yàlla da nga koo fasoo jirimal bàyyol koom ba mu xamee ñaari weer ci biiram am nga rey baayam mu xam juróom benni xat nga yee rëy yaayam muy jiril de baayoo lu tax nag yàlla ne leen damaa bañ ko dugg ci moom aw tur dama bëgg lépp lu mu amati ñu xam ne maa ko ko jox te danaa ko yar te danaa rafetalam yaram moo tax yonente def bi daan yonente def daan wax ne adabani rabbi fa asana taadibi yàlla yar na ma te rafetal na suma yar yonente tiim ko jooy nag ndax gu nekk juróom benni xat xànd ak mu des ci tukki ma ngeen doon tukki yi loolu mën naa jaaxal ndaw mu dal de jooy Abdul Mutalib ne ko noppil man maa lay delloo Makka Abdul Mutalib moo ko delloo Makka amee ko bam mu ko amee nag Aminatu ci boppam nag ñu suul ko fu ñuy wax Labwa Abdul Mutalib amee ko ba ba yonent dundee ba xam juróom-ñeenti at téere yi nag li ci ëpp juróom-ñetti at lañ wax waaye dégg naa ci kaset baay ne. juróom-ñeenti xal la woon te nee naa la waxtu woo weeranteeg téere yi dema lal bàyyi rek la bàyyi wax moo gën a wér ba ko defee nag ba amee juróom-ñeenti at booba la Abdul Mutalib génn àddina ñu dénk ko Abo Talib Abo Talib nag moo ko yar ba ni ko yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi ne xaama sittin caatam juróom-benn min umrihi ci dundam ba moom yonent bi maata ci la dee lu mu deyam faridan muy aji wéet baadin muy aji feeñ bi xayri misaalin ci lu dul kenn foowa moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam baadalaayil baadalaayil jëlil gannaaw yàlla mu màgg ma jëlilul xadri ku màgg dara jala lu yonent bi màgg màgg bul ko wax mu ko ne yàlla la waaye waxal ne gannaaw yàlla mu màgg mi de yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa ku màgg dara jala والوصف أكمله ده بايه ما قدل ما قال الدلالي وخي ويريني وخي ويريني موي نينوهان هيسا يالالا مريام يالالا يالالا يالالا بول وخلول ده وخلنا يونن تبي دي كناو يالا مماغمي كماغدالا يالا لولو موغم الدفوق حق يونن تبي صلى الله عليه وسلم كوكو موي باي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ولقاء القاتل الماء سبقنا في وقت الى صراطك المستقيم ولا عليك خزي ومن خلال الامين بصر الدجلنا بالهادي كي ينتبه نبينا ينتبه تران بولسين مثل موسى كم موسى alkalimi kade kuñ waxe baadil ba saali ka aji feeñal ak njàmbaar dalaa il nu bowaa ngoog yonente yi ku ci ne ku ci nekk bégle nga ci yonent yàlla muhammad wax say nit ne dina ñëw suma gannaaw muhammad bu dikkee nangam lay mel bu dikkee nangam lay mel waxtuum ñëwee nag wa ci leen seen diine yi dem ànd ak moom xam ne diine ji wét Moussa wax na ko ñooñ tawreet Xeesa wax na ko ñooñ linjiil te mooy évangile Daawuda wax na ko ñooñ sa saboor ñoom ñëpp dégg la nañ ci seen nit ñi ne àndalee nag Muhammad mooy ki nga xam ne moo xamee diine yi dëgg tey su ko defee nag waaye ñooñ alul kitaab dañoo xañaan te bàyyi mu ne kañaan dafay nëbbu xam-xam ci seen kañaan googu nag ci la yonent bi xàndee xoo nag Abu Talib wax naa leen ne ba Abdul Mutalib gaañoo Abu Talib lañ ko jox Abu Talib bëgg ko lool buy lekk lekk moom buy tukkee xànd ak moom buy tëdd tëdd moom mu dal di xànd moom nag gannaaw bu yonent amee fukki at ak ñaar ñu dal di tukki saam bañ démé ba djub sam ñu tok ci ben kër garab ben labbe bu ñuy wax bahira raib dala leen seen gis na yonent bi nir wa ngoy héral jant ba ngoy héral mo xamné ki de mooy yonent xeet wi mu dal di dik nak ci xaafila bi ne len yéen day dama len bëgg invité añ tay bu kenn añee ci poosam tey yéen ñëpp maa leen gàddul hañ nam ko waxee woon mu dal de dem jox jabar ja dépasse mu togg añ bu doy baañ ba matee nag mu dal ñëw yónnee ci ñoom nañ ñëw nañ ñëw nañ ñëw hañ ba ndaw la demee nag Abu Taalib ne yonent bi yaa gën a nekk gone ci yoon toogal gardel ñu suñ bagage bi suñ hañee dañëw rek ma jëndal la hañ yonentu musta weerante sallallahu alayhi wa sallam lu ko kilifaam wax rek loolu lay def mu dal de toog nag toog ne mu ngay garde bagage ya gaa dem nag bañ demee bay raaraayu gàttandu leen ne leen nax ñi ngeen xem ñu ne waaw waaw nii lañ xem mu ne ndax ñi ngeen xem ñu ne waaw waaw nii lañ xem ba mu ñetti yoon mu xam ne ku laaj laajati xam na loon na mu ca laaj ga ñu ne ko xe muñ ñii de am nañ ko ne si tuuti soo xam ne suma doom la moom lañ wàcc ci bagage ba mu gardel ñu ko bàyyi laa ne leen nga ne loo ko waxee sa doom sa doom nga waxam mu ne ko waaw mu ne ko kooku juróo ko de dañ la koo jural kii ba mu xamee ñaari weer ci biram ndeyam la baayam dee ba mu xamee jiroon benn yaayam dee kii jirim la baayo la mu ne ko wax nga dëgg de suma doom bi mbokkola la ku ma bokkante ak baay moo ko jur mu ne ko noonu lay demee mu ne ko waaye nag li ma lay xamal mooy kooku ngeen bàyyi mu gardel leen seen bagage bi moo waral xañ bi de munu ma leen a forcé ndax juruma ko waaye li ma wóor nag mooy bu ngeen ko indiwul du ngeen xañee suma xañ bi ñu daldi def yoon ci yàlla Muhammad xarxanam baa nga mel ni jantam jolloor mu ngay daagu ndagaayam lu jekk la ànd ñoom ndagaay la mooy lan Busiri yoo ko tagg dëgg Busiri yu mu ne seydun ab sangala lax ko hoo joojiree am jattaba su mu muuñ la yonentu bu daan rey daawud xaqataay def daan muuñ bàyyi doon na ko ci wal mas yu dox ba way naa ndànk la daawud parampara yu hóot te daawud timpaañ timpaañ ne tubaab o hoo nelewam yàlla faawun ngëmentu la mu ngay daagu ndagaayam lu jëkk rek ànd ak ñoom bañ jëmee ba jublee bàyyi daal dal di sotee ca taxam kooma rek dal di dikk gàttandu ko gone noo tudd mu ne ko Muhammad kuy sa yaay mu ne ko Aminatu kuy sa baay mu ne ko Abdoulaye mu ne ko ajal yow ni la jàngee woon lañ la fekkee yow yaa ñu gën a ci suñ doom yi ndax suñ doom yi xamuñ seen ndey yahuruñ nañu seen ndey yow nag ni ñu la jàngee noonu lañ lay fekkee yaay waaja dale korose yonent bi nag wala korose aboo Talib ñu dem waaye dalal na Abu Talib nag fu mu dalalul kenn su ko defee nag luñ defal gaaña defal Abu Talib ñaaram ba ngan nga matee ni ko pap pap Amady Diouf de waxee ba ngan nga matee nag mu dal di dikk ne ko kay ma laa xela biit su fekkee ne am nga ci sa doom ji soxla wàññeekul ak moom ndax meloom wi humput ku weex humput ku ñuul te yow dañoo xañaan xallak saa rek juróom-ñaari gawar ne jalañ baxeeraa dal de wàcc gàttandu leen ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko ci bés bi ci waxtu wi ci saas yi dañoo jàngoon ni barax li dina wàcc tey saam suñ dikkee fekk ko mu bokk ci arab ñu rey ko bokk ci xem ceeg arab ndax jooju teraanga jomb na arab su fekkee ñëw nañ fekk ko mu bokk ci ñun nag ñu xam ne gàcce ngaalaama ñun yàgg nañoo doon sang bàyyiraa ne leen ndax man ngeen a fanqulu yàlla dogu ah ñu ne déedéet mu ne kon doxu leen dara si yàlla na mel dina ko yoon yi munu leen ci dara ñàkk ngeen bopp ñu dal di wàññeeku mu dal di dikkal Abu Talib ko waxoon naa ko wàññeekul ak moom doon seet moo tax bàyyi habba saa baax na ibrahim fo de seen jawa saa koko sa bàyyi naa mooy bàyyi raaraayu summa nastora topp nastora abda yaa feeñal nañ ñoom ñaar lil jamaal ci tarab yonent bi nastora itam xeesa dafa toogoon ci génn déem bam toogee ci déem ga waaja dem mu ne leen déem gi maa fi mujj a toog kenn dootu fi toogaal lu mooy baraxliit ku ngeen gis mu toogaat fi rek bu leen werante xam leen ne mooy yonentab xel yi dalde bind leetar ba baxee ko xalifa ba ses moom kooku ba muy dem moom it mu jox ko xalifa ba ses ci moom ba leetar bu mu jibi nag xalifa bi mooy nastora yonent bi nag daldi ànd ak gaañam ñi ñu ñëw ba ca dem nga ñu daldi fay toog ba ko nastora séenee rek daldi sotee ca taaxam ka Omar jiital bopp ba jiital dox ga ne ñëw samp dox ga ci kanam yonent bi waaye lu xokkut bant xokkut ko de waaye wax naa leen ne nag lu yàlla defal xeeti yonent bi yàlla defal na ko taalibey bàyyi fii ci gannaaraay fi la amoon benn sikkar ci kër Bakar Faal ci ba soxnaam suñuy wax may mu ne yaa juuf gaañoo ñu de ko sikkaral nag te booba waxambaane yàlla laa fu ma neex sànni suma baat bi ca du kal may tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla di tudd yàlla bi nga xam ne gaaña xal nañ benn waay bu ñuy wax fa de ndëpp fekk mu ngi boot doomam mu xattar bi doom ja rek ne ko taw ca tabal ja taw jakal àddina bi yëpp ko dégg waaye lu xokkut banta xokkut ba moo tax ma ne leen lu yàlla defal xeeti yonent yàlla defal na ko talibé bàyyi waaye na taalibe yi xam seen bopp nag